ñoo ngi dalal tey soxna si euh, Fatou Blondin Diop ancien ministre Wade tey coordonnatrice avenir Sénégal bi ñu bëgg ñu lay euh, nuyu di la dalal si réew mi FM soxna si. waaw maa ngi leen di maa ngi lay fay di nuyu seen auditeurs yi. Mhm. Euh, di la jaajëfal bu baax ci invitation bi. Mhm. ñu gis ne yéen waa avenir Sénégal gi ñu bëgg ngeen génne benn communiqué gannaaw nag investiture yi ci Yewwi Askan Wi ngeen am yi ay manquement yi nga xam ne yéen a ngi koy soulever soulever lu ko waral lan ngeen seetlu. waaw euh, di wax ne que euh, bi liste yi génnee. Mhm. ñuy wax ne que liste ko gisee ci biir euh, réseau yi. Mhm. maanaam nit ñi di ko partagé ba mu yegg si ci ñun. Mhm. dañ ci gis que avenir Sénégal bi nga xam ne docteur Cheikh Tidiane nekk na ci te ku ne xam na ko Sénégal. ak man ci sam bopp madame Diop Blondin Ndeye Fatou Ndiaye. Mm-hmm. nga xam ne dañu bokk membre fondateur Yewwi Askan Wi mm-hmm. am ci ay ndombal tànk maanaam ay commission logistique et moyens mm-hmm. am def ci liggéey bu am solo ci finance Um, base politique parce que lu am solo la ci critères yi nga xam ne dañoo war a représenter dëkk voilà bu ñu gis ne que critères yooyu yëpp taxawee ak la waxtaanee woon ah li génn wax dëgg yàlla méngoowul ak lañu waxtaane woon mhm. li ñu ci gën a jaaxal nag mooy ñiñ euh, ci dugal ñenn ñi euh, dañu demoon ci lokali yi bàyyi yeewi askan wi mhm. dem ànd ak nguuru Macky mhm. ñeneen ñi dem ay liste citoyenne ñeneen ñi nekk rek ci réseaux sociaux yi di wax loolu mooy seen représentativité maanaam noonu moon mooy seen liggéey ci askan wi ñu ne Yewwi Askan Wi soxla na yaatal soxla na ay membres yu bees soxla na euh, liggéey bu gën a yaatu mm-hmm. wante wax dëgg yàlla ñi fa taxaw taxawaay bu mel ne ñun suñu taxawaay biñ fa def te du ñun rek wax dëgg yàlla mm-hmm. ak yeneen parti ak yeneen mouvement nekk fa guddi ak bëccëg di fa liggéey joxe suñu temps joxe suñu alal joxe suñu suñu lépp xaw a négliger suñu liggéey mm-hmm. wax dëgg yàlla bu ñu ne dañuy def assemblée de rupture mhm. buñ ñu fa tegul tam ñu teg fa ñu mel ne mhm. loolu mooy li yoon li nekk yoon mhm. ndax wax ñu ne ñun rek la de wante buñ fay teg keneen nañ ne a ah, yéen yéen ak yéen yéen yaag diw yéen ci yemandoo kon boog wax dëgg yàlla il fallait que kenn toog jël nañu kii nga xam ne li d'accord na wante buñ ko jëlee ñu dem ba taxaw lépp ñu teg ko ci taabal bi mhm. ba am lu ñu tënk ñu dem dellusi tek yeneen su boobaa def ñuy jaaxal ñu ne nag Yewwi Askan Wi li muy fi woon mooy indi beneen façon doxalin mhm. te bii doxalin méngoowul ak lañu tënkoon ba ñuy indi Yewwi Askan Wi mhm. loolu moo tax ñun ñu génn ne doonte dañuy toog ci biir Yewwi Askan Wi parce que gëm nañ ko ba léegi. Mm-hmm. te du ñu def safaan bi ñooñ ñooñu ñooñu ñu fi génne. Mm-hmm. kooku duñ ko nangu. Mm-hmm. wante dinañ wax ne lii méngoowul ak la ñu taxoon keroog bañ naan dañuy war a def yeewi askan wi. nañu jóg te taxawal benn kuréel lii wute na ak lool. d'accord kon daal euh, ci tënk yenn euh, critères ou compétences yi ñoom jëluñu ko en compte. en tout cas euh, mënuñu ko wax noonu parce que wax dëgg yàlla kenn du xeeb kenn. wante euh, bu ñu tegee lépp ci table bi. Mm-hmm. li ñuy njëkk a ñaaw lu mooy euh, maanaam waraate bi daal. Mm-hmm. trahison. Mm-hmm. li ñuy njëkk a mooy mooy mooy méthode bi daal. mooy tànk ba pare tourné dem nëbbatu def leneen. xam nga loolu wute na sax ak ñay ñëw nga xam ne kenn xamuñu amaana baax na amaana baaxuñu. leneen tam buñ ko tegee ci table bi bu ñu demee ba nekk ci biir ba di la dénk ay commission nga di ko liggéey ba ñëpp taxaw. Mhm. defe naa ne bu fekkee ne yem ngeen compétence am nga yow benn loo loo loo ci ëppale. Mhm. ndax yow yaa ci biir depuis le début. Mhm. kii yegg si y a même une semaine ñu jiitale ko de dix places de vingt places. yow sànni la ci gannaaw. fekk bi ñuy dem ñooñu yegg seeguñu ba ñuy tënk ñooñu yegg seeguñu sax. Mhm. a ah, defe naa ne loolu euh, xel mënu koo nangu voilà donc du du rek nekk dañu teg kii d'abord doxin doxalin bi la mhm. ak ñan ak ñan la jël teg leen fii wala teg leen fi ñaar yooyu la mhm. mu am lu am hmm. solo ci say biir kàddu li nga xam ne yëkkati nga ko ne compétence tey assemblée nationale bëri na euh, liñ koy ŋeeñ euh, mhm. ndax euh, débat bañ leen soxlaa de qualité gisuñu ko fa tey ndax neef bi dina am nu mu nu mu njeexital justement ci assemblée gi nga xam ne moom la sénégalais yi bëgg muy rupture loolu mooy loolu mooy wax mm. parce que bu fekkee ne comme nañ ko doxalee woon nga xam ne ku nekk booy ñëwee di indi sa candidature dañ lay wax waxuñu sa CV mais sa profil mm-hmm. jaar mm. mu nekk ci sa métier mu nekk ci sa engagement associatif mu nekk ci sa engagement politique xam nga ne loolu dafay daal di wane ne ku ci nekk mhm. euh, oh, yow ndax boo demee ca assemblée ba lan ak lan nga fa mën a nekk mhm. xam nga mhm. loolu kon boog ñu doon xaar ne que ñooñu bu ñu yegsee euh, nga xam ne xammee nañ leen déjà ci xeexal askan bi xaar yu am ndombal tànk xaar yu am salaire pour xeexal askan bi xam nga su boobaa dinañ ne ah ñii de dinañ am rafet njort ne bu ñu yeggee ba foofu dinañ mottale liggéey bi wala ñu def ko ci anam yu gën a sori. Mm-hmm. wante bu fekkee ne ñi ci kaw ñooy tabb jël dafay daal di mel ne rek li fi nekk. Mm-hmm. <laughs> nga xam ne da ñëw daal di jël euh, jël sa ay ñoñ euh, teg yëkkati kii bu ñu demee nag ba nga xam ne ñun ñëpp kuréel bi nga gis ñoo xam ne ñun ñëpp ñoo ànd di ci liggéey te wax dëgg yàlla leader yi ci nekk ñëpp koo ci jël jaar jaaram am na lu liggéey. Mhm. ñu jël leader yooyu ñu bari teg leen fële. mu am ci suñu biir ñoo xam ne dañu am diis ba quinze. Mhm. am ci ñoo xam ne amuñu sax benn représentant. te fekk ñoo ñëpp ku ci nekk benn leader nga ca conférence des leaders loolu doy na waar. Mhm. kon mooy ñi dem ba yegg am nañu lu ñu liggéey lu wóoteeg xel bi ñu demee woon ba ñuy tabax lii ak rupture bi ñu doon wut léegi nag bu fekkee ne yow yow am diw moo tax nga am ko mooy li ngay dégg ne man député Macky Sall la hmm. wala boo yegsee ci kii nga ne député Yewwi Askan Wi hmm. dootoo nekk député assemblée du peuple hmm. da daal di yow da ngay xam xel ne am na ci xam ne mosuñu bokk dañ leen dem jëli leen fa yegsee foofu yow diw moo toog xalaat la indil la jox la ndombal tànk yow kooku député am ko kooku da nga koy tu le dois allégeance. Mm-hmm. da nga koy delloo njukkal. mais bu fekkee na yow daf la fekk nga engagé ba pare. Mm-hmm. yow jugal sa bopp ñëw bokk. ñëw bokk ci liggéey bi. ñëw bokk ci xalaat bi. ñëw bokk ci doole bi. Mm-hmm. ñëw bokk ci terrain bi. xam nga boo yeggee yow yow yow sa bokk gis nañ ko ba pare. su ko defee yow da ngay continuer di liggéey. kon bu ñu bëggee assemblée de lutte de rupture. Mhm. loolu tamit foog ñu teg ko ci table bi. mais rupture googu justement est-ce que waaye politique bi justement au niveau de. yéen ah man gisaguma ko ah ni euh, jëfewuñu ko. man gisaguma ko wax dëgg yàlla. parce que wax dëgg yàlla côté boobu lu lu lu mënoon am la. Mhm. du tax nga gagné ah parce que sénégalais yi ñooy voté. non wax ko jëfee sax dafa am lu muy apporter justement. ci benn aperçu wax ko wax loolu pour man loolu loolu tey jii gisuma ko. Mm. loolu gisuma ko léegi nag ma ne nag wax dëgg yàlla euh, ñu bare bari ci weewu askan wi li may wax ñu koy wax wala buñ ko waxul ñu koy xalaat. Mm-hmm. kon ma mm-hmm. ba léegi ma esprit yeewu mm-hmm. askan wi. mi ngi fi. esprit askan wi mi ngi fi. te ñi def loolu tey jii safaanoo nañ ak li ñu taxawoon na ba créer yeewu askan te ñoom duñu tax xam nga li ñuy wax benn pomme de terre bu yàqu rek buñ ko du tax ñu bàyyi ko ñëpp yàqu ñu sànni lépp ci ci mbalit mi déedéet dañuy toog ci biir xeex ko ci biir mhm. waxee ko ci biir liggéey ko ci biir jéem ko soppi voilà parce que changé leader moo gën a yomb changer euh, euh, changer ni nit ñi di xalaate mhm. ak ni nit ñi di defee kon liggéey bi tam dañuy nangu ne dafay jël temps mhm. dañuy nangu ne affaire u nit la dañuy nangu dafa laaj muñ dafa laaj nga gis ne tey jii euh, baaxul mhm. suba nga jugaat gënaat jug gënaat liggéey pour gën a sori. Euh, mm-hmm. tey euh, ñoo ngi wax waxi parenage amoon na ay weer ci ginnaaw euh, bëri na ñi nga xam ne jógoon nañu di ko xeex ne du ci dal CEDEAO sax dal ci àddu parrainage bi tey ñu jëfe ko ci élection yi ñu dëgmal mu am sax ay victime am. Mm-hmm. jamono ji may ñuy waxtaan ni ban commentaire justement nga ciy def. voilà loolu moom bettuñu parce que ki teg parrainage. Mm-hmm. dafa teg ay calculam te du parrainage rek mooy calculam problème bi ñu am nag mooy ñun moo dee ñu koy reproché mm-hmm. lu tax bu fekkee ne xam ngeen ne lii day yàq lu tax ngeen bokk ci jeu bi mm-hmm. ah may xamal rek ne que loo gis rek euh, li ñuy wax moindre mal maanaam am na lu ko yées boo defee li am na lu yées li ngay bañ nii mm-hmm. suñu defoon noonu ne a ah, ñun de ñii li def d'accord uñ ceeg ñoom dañuy banque suñu loxo su baa ñi nekk ci nguur gi dañuy daal di dexar seen élection jël cent pour cent assemblée wala ñu jël benn koo xam ne benn euh, koo xam ne moom nangu na ne man mën naa leen nekkal euh, kii kii représenté opposition mm-hmm. comme ça ci institution démocratique yi ñu continuer di ñu lebal xaalis di may xaalis di ñu toppatoo parce que partenaires yi lañ koy defal defaluñu ko askan bi mm-hmm. su ko defee ñu ne a ah, déedéet déedéet yow nangu nekk nekk nekk opposant mais sénégalais yi ci seen bopp faale wuñ leen mhm. dañuy daal di jël assemblée bi doxal ko ba mu dem dem seen yoon loolu xam nga moo moo moo yées mhm. loolu moo tax donte ñu ñaawloo ay euh, kii parrainage bi mhm. donte gis nañ ne que ñaawlu bi du ñun rek société civile bi mi ngi ci comme ni nga ko waxee sànq CEDEAO mi ngi ci ak leneen mi ngi ci nguur gi mooy ci ne dakoy def tey ak kii ñu ne quand même nañu dem wante nag ci cappaandaw gi nag léegi li mu wane loolu mooy li tax parenage bi euh, nekkul bi euh, indi kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax bu fekkee ne d'accord nañ ne dañoo wàññi dañoo war a wàññi ñi dem ci élection yi ndax dafa cher mm-hmm. dañu war a defaraat taxawaayu politique bi kooku kenn bañu ko mais am na fu bari fuñ koo xam fuñ ko mënoon a te état bi bañ na du ko fa liggéey ndax bi Macky Sall di yegg si 2012 280 parti moo amoon. Mhm. tey mu seetaan ba mu am 400 parti xam nga kooku kooku liggéey mënoon a am foofu. ndax bu ñu seetoon rek ñi am siège ñi def seen bilan financier ñi def seen assemblée générale defe naa ne trente partis politiques du am Sénégal bu ñu waxee dëgg bo dëgg et même des grands partis yu wax parti yu mag. Mhm. du ñu jàll. donc foofu mënoon nañ fa liggéey. Mhm. suñu buggee defaraat tamit élection yu jaar yoon noon nañ ko def bulletin unique bu ne bu ñu bëggee defaraat bu ñu tamit quand même parti yi ñu ngi fii nañu def. Mhm. mais vote électronique mi ngi fii Nigéria cent quarante millions d' habitants la ñu am. Mhm. vote électronique la ñu def coow jibul donc xam nga ne bu ñu bëggee defar am na royukaay yu baax yu bari yu nekk sax ci biir Afrique yu ñu mën a defar. justement bu ñu defee li c'est parce que bëgguñu defar dañoo bëgg gagner par la force te gagner bi comme mënuñu ko jaarale ci yoon ñuy seet naka la ñuy wàññee ñiy wàññeeñee pour mën a jàll ni ñu taxawoon woon ne ñun dinañu gagner élection présidentielle avec cinquante huit pour cent mhm. ak cinq partie mooy dem boobu demaguñu sax élection dëgg la loolu la ñuy waaj fi ñu nekk nii mais bi yoon du yomb parce que loolu moo tax ñuy tëral li yëpp moo tax ñun donte am nañ problème ci biir Yewwi Askan Wi ak mhm. doxalin bi mhm. tey la ñu gën a taxaw parce que tey la ñu gën a taxaw parce que système boobu euh, Macky Sall jële ko ci PS jële ko ci PDS ñu continuer di ko def mhm. xeex boobu moo ëpp ci solo suñu problème yi ñu am ci biir Yewwi Askan d'accord en tout cas ñun ci suñu engagement. ñu lay jaajëfal bu baax a baax soxna si Fatou euh, Ndeye Fatou Blondin Diop. di lay jaajëfal yow bu baax a baax a baax ci invitation bi. baax ci invitation bi. baax.